aca arbitre sifle na combat ba diggante Badara internet ak Brosse bu Njaga mbaa Mamadou bu Njaga Ñaaw ngembul ruus Badara internet ngemboo ngembulu ñuul nee naa la jilaas lay xewe ñoom ñaal su ma ñoo ngi ci quart de ñu tegal leen cinq cent mille francs CFA du aca woykat ya ñoo ngi ci préparation mais ke ngel jilaas no ngel may poot sate champion ka sate aca ñu déglu combat bi du dog Sadio Ga aca Seny Yandé Thiam a ngi noonu du dog Sadio Ga mu ngi dox ci kawam Mbambine Diap waye boros bu jaga ñaaw ne tek tekaral Badara am ngemb nit jàpp amna ngemb de Bago, bago, bago, डालने को छह लोग टेक्नीशियन